Tek Choc Laye Bruce Lee Tek moo woon ginnaaw Laye Bruce Lee moom la ñu jaakaar lool Tek Choc ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar Tek Choc Laye Bruce Lee Laye Bruce Lee moo ngemboo ngembul xonk li Tek Choc moo ngemboo ngembul vax bi Tek Choc moo ñu féete à droite Laye Bruce Lee moo féete à gauche arbitre bàyyi leen dinañ bëre arbitre bàyyi leen dinañ bëre bëre mënu cee ñàkk teg soklay brisili teg soklay brisili ee eh, jàppante nañu laay brisili dem na laay brisili jàpp na teg sok dugal na benn bu sew dooraat na beneen teg sok laay Textor dooraat na beneen Laye Bruce na léegi Textor Laye Bruce Lee Textor dooraat na mburu Tafa Diop bi eh Laye Bruce Lee jël na tànk ba léegi Textor dawale ko Textor Laye Bruce Lee eh door na dooraat na Textor Laye ko. Laye Bruce takk na Tek Choc mbëru Tapha Ba nu muy def Tek Choc Laye Bruce oh xale yaa ngay bëree Tek Choc Laye Bruce Tek Choc Laye Bruce Tek Choc Laye Bruce Tek Choc Laye Bruce moo ñëwoon ginnaaw Tek Choc la ñu jaakaar lool Tek Jack Sock laay Bruce Lee laay Bruce Lee Jack Sock ah, ba ci suuf laay Bruce Lee ngay bëree bëree ba laay door na ko moom laay Bruce Lee dooraat na fàq na ko fàq na ko laay Bruce ngay xeex daw na fàqo laay Bruce kala ya ngay def bari na laay bul forcé lamb naxante la lamb naxante la ba daan sañ bi ma la gisee dama kontaan maa la gën a bëgg man dama laa bëgg maa la man dama bëgg yàlla sa jàpp amee woo boobu réew meeg doom bu la kenn yërëm bu jeeg sa moom dóor ba mu kenn bu la kenn yërëm bu leen baal sax la baal kenn <laughs> <coughs> laay Bruce Lee teg soog e kii nga dóor mu fayu ñu ñamante jaw na jël ko Bruce Lee la ngay tànte daa bari laay Bruce Lee la ngay tànte dafa bari lamb kenn ko forcé teg soog a ngay dóor teg soog a ngay dóor eh teg soog na ko daan da ngay daanu daanoogul daanoogul mu ngi koy sëf poids ba mu sëf poids ba mu mbot jógaat nañu waaw teg soxlaa Bruce Lee combat bi mënut a yomb combat bi mënut a yomb teg soxlaa Bruce ñoom ñaare ngay bëree teg soxlaa Bruce Lee teg soxlaa Bruce Lee ñoom ñaar ku ci nekk ngay jàpp di déglu sa morom. arbitre bi sifflé na temps ba Tek Choc Tek Choc laay Bruce Lee da nga jël avertissement Tek Choc jël na benn avertissement ku ci nekk ñoom ñaar am nga benn avertissement. La Brigil am na benn avertissement. Tek Choc am na deux avertissement Laye Brucheli la ñu jaakaar lool ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar eh Tek Choc Laye Brucheli Tek Choc Laye Brucheli door na ko dooraat na ko eh, eh la waa Tek Choc doo bëre Tek Choc Laye Brucheli dooraat na ko door jàppante nañu teg choc laay Bruce Lee teg choc laay Bruce Lee teg choc laay Bruce Lee door na ko laay Bruce Lee xeex laay Bruce Lee xeex eh teg choc da koo bëgg a taxabal wala da koo bëgg a mbot teg choc laay

supply this route. jàpp na. Tek Shock jàpp na. Arbitre na. Avertissement ah, Laye am na trois avertissement. public baa ngay kaas public baa ngay kaas ku dem Ardo Tek Choc dem na Ardo Tek dem na Ardo dellu si waat Tek Choc laay bursuli arbitre bi àtte na jox nañu victoire ki am mooy Tek Choc arbitre jox na victoire Tek Choc